merci beaucoup Kara Diouf ci euh, loolu euh, Mouhamadou Moustapha dama lay bàyyi nga tijji rek li nga xamante ne Moustapha tey jëlal émission bi amee ah, dama feebar. ni mu demee noonu la demee fii tey moom mooy loolu tey tey tey bett de mais nañ dem. mais tey nag nga dafa am yoo xam ne dama leen maîtriser comprendre nga loolu. ma waxee du ngeen ma gëm man xam lu tax ma waxee télé bi duñ ma gëm. yow yaa des naa fi am respect daal. ah waaw. mais dama feebar. Euh, Karajo forcé Moustapha forcé man mosuma gis. lu mel ni du jaloog mais nañu woote jaloog jaloog waaw du ñëppay dem de wax ma man d'accord ma ci jaloog bi. yow da ngay dem. waa jaloog bi dafa trop tard. <laughs> dinañ ci ñëw hmm. euh, dañuy dem ci rubrique Karajo bijou comme nee nga da ngay indi ci quatre rubriques yoo xam ne dañ cee war a waxtaanee tey bi ci njëkk bokk na ci foofu nga xam ne mooy Ouest Foire di sama quartier di quartier Mbay di quartier ñu bëri fii mais dafa amoon agression boo xam ne bëccëg la bijou il paraît vers midi 13h. gaa yi kar gaa yi ñii ubbi porte bi ñii dem jàpp waa ji nangu téléphone am xam naa dañuy xool élément bi léegi léegi dinañ am des amples informations. léegi ma ne mécanicien bi maa ngi dem ñëwaat ci dëj bi euh, ma dugg ba ci yoon bi jël taxi dugg ba ci yoon bi mu woo ma ne ma oto bi pare na ni may wàcc noonu rek ci la gaa yi ñëw daanaka jàpp ma jël sama téléphone voilà. bu bu bu bu yaay du ngeen tijji na bunt bi daal def bi tijji na bunt bi non saa yi ñu accéléré tijji na bunt bi dafa nar a dafa nar a accéléré saa yi xool xool taxi man xool taxi ñu xool saa yi ñu ñu koy kii ñu ñu koy ñu koy ñu koy palpé wala xool ñu koy ñu koy palpé ñu koy palpé xool non jël nañ ci yëpp dañ ma agressé dañ ma agressé jël sama téléphone téléphone rek lañ jël waaw c'est la première fois sama dund ñu may agressé mi ngi nii laa la ci yemal loolu moo nekk élément bi nga xam ne moom la ñuy temps yi mi ngi def buzz ci toile bi ñu bëri naqarlu ko et man euh, li ma ci jàpp mooy pour man insécurité ñëpp dañ ko daan wax mais bu ñu tollee ci heure yi ci mel ni dix heures douze heures gars yi di mën a agressé nekk bëri nañ nekk ay nit yu bëri di ko def ci bëccëg bi te gisuñu ba léegi kenn interpellé wala ñenn dem pour mën a arrêté loolu et je pense que insécurité am na bu ñu xoolee. élément bi maa ngi dégg léegi euh, Karajo naan euh, dawalkatu sareet yi mais je pense pas. parce que fii image yi ñu fi gis nii dawalkatu sareet yi bëgg nañ dara ba ñu ngi def dara. Mm-hmm. mais ñii ma gis du ñu ay dawalkatu sareet. déedéet déedéet. parce que lii c' est exagéré quand même. trop exagéré c' parce que lii digg digg bëccëgu ndar kàmm la. oto bi ci kanam avancé na man dama defee ne lii. taximan bi moom de euh, waa ji nga xam ne ñu ko agressé moom bu ko rayoon tamit non assistance à une personne à danger dinañ ko jàppee ñu bari ba ci taximan bi nga ne moo ko

bu gaaw ma ne agresseur bi diggante ñaari oto yu mu jaar ndax waruñu ko woon fa naj foofu ah. mais comprendre lul taximan bi comprendre mais surprise de bisu kenn xalaatul à cette heure ni agression dina am. waa am na. te man ñii taxul ñëpp a ngi nii di dox seen kanam yaa ngi feeñ fii yomb nañ identifier. fii suñu ay police dañu xarañ. gisoo fi ñu ko jëlee. jëlee ginnaaw ginnaaw kii bi la ginnaaw ah, ginnaaw taximan bi la. mais ñi xam naa ci kaw terrasse lañ nekk boo déggee mi ngi wax naan yow ubbi na porte bi parce que ñoom itam yaakaaruñu woon ni dina dina demee noonu et lii du def mel ni ci côté aéroport bi la euh, si teggi. Ouest Foire bi la xandaar fan booru pharmacie xandaar la. ñuy filmé waaw fii booru pharmacie xandaar. fi ginnaaw na mais kii filmé mi ngi ci kaw. mais kii filmé lii nan la xamee ni ñi dañoo ñëw. non interview la waaw mais dañu dañ doon def interview ñu yem ci. surprise en fait. état wala interview mais li interview juste après agression bi la. xam naa dañu gis ñooñu parce que boo xoolee micro leeral la juste dañoo gis ñooñu après ñu xool waa ji agressé pour mu def intervention pour mu wax. mais lii lañu war a aaye ay cagoule yeeg ay masque et je pense que moment bii nii gars yi war nañ mën a def descente foofu parce que tamit euh, yoon bii nii nii nii nii bëccëg ak guddi yëpp dafa dangereux. peut-être mbay mi nga xam ne day tegg di dugg noonu xam na ko. Euh, ñu ngi am benn information venant de VIP People euh, de Tange mi ngi naan. bon waga yi nga xamante ne ñoo nekkoon si ancien piste bi bi leen bi ñu leen délogé ñoom ñooy ñëw di sillonné à chaque fois euh, euh, ci côté yooyu mais tamit euh, c'est pas une raison insécurité bi nga xamante ni ñu ngi koy dund bëccëgment ibbi oto daw dugg këf nit ki li mu yore c'est abusé encore une fois de plus ba pare bi ko defee pare que tëj porte bi mi ngi menacé waale dem mel ni comme si ci lim nekk yoon la kii jël tubayam ji dugal ci téléphone bi nga xam ne moom la jël ci waa ji y'a problème di koy jiiñ moom ma nga ne di avancé yëgul li xew moom sareet baa ngi di liggéey liggéeyam te ñu ngi naan dawalkatu sareet yi parce foofu dafa nekk garage yu sareet yi waaye dawalkatu sareet yi am nañ seen métier am nañ mu bëgg tubay du ñoom oh, oh, oh. am na fa guddi Ouest Foire wala ah bi taf li sa sujet la waay waxal waay ah, samedi passé bi taf samedi passé man ci ba pare aw noonu dugg stade Léopold donc bon je pense que euh, force de défense et sécurité yi war nañu gën a mën a renforcer ci heure yooyu ñuy def ñi sillonné bien vrai que ñi ngi koy def c'est ñi ngi koy def ñi ngi leen ci félicité mais ñu yokk ko parce que insécurité bëri na te du man kese am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi kaas lu ni mel et man pour war nañ ko war a mën a def. Euh, euh, Mali. Hmm. Hmm. laa jógee barki démb. bu ñu jàppee sàcc wala agresseur dañ lay taal. amul wax amul amul. amul kii négociation fa euh, amul loolu léegi at dëkk ba yëpp xam nañu ni ku ñu jàpp muy sàcc wala agressé dañu lay taal léegi pour nga gis fa loolu da ngay lu metti pour gis ko foofu amatul sàcc ak ay léegi dañ ko appliqué fii mu jeex ah doy na taal boo dee baax na boo deewul baax na mun nga mun nañ laa taal nag ba setu la essence ba nga wér ba bu ñu yóbbu la hôpital nga wér non taal moom ak essence moom wér amatu fa waaw may bu dañ lay taal Mali loolu moo fa am moom te lii dafa garaaw. non lii lii sa fa lii bu doon man la moom dañuy reyante man moo xam naa fa laay sedd guy moom sama alal doo ko jël noonu moo koy gis ngay dem sa yoon problème. parce que tamit c'est bien boo comme li Tange expliqué dëgg la parce que euh, il faut ñu dénoncer li nga xamante ne moom mooy insécurité bi am. Oh, oh, oh, mais 11 heures ci suba ñu dajj nit otoom dóor vitre yi nangu li mu yore jël li mu yore c'est à régler. dëkk bi liñ fi war a régler dafa. bari te ku kaas ñu wax ni fii nga bokk wala fële nga bokk wala nee nga def waaye ñun askan bi lañ fi nekkal fii ñu toog nii defe naa ni wax dëgg yàlla toog askan bi la toog toog askan bee ñu fi tax toog amuñu kii nu mu nu mu koy waxatee amuñu ah, xaaj ak seen amuñu xaaj ak seen amuñu naka lañ koy waxatee kii am amuñu audience amuñu dara ñun mës nga jaar ci ginnaaw miiru aéroport bi mu tàmbalee fa laa dëkk fa la dëkk. bokk na ci zone yi gën a drastique gën a dangereux ci Sénégal. effectivement pour man dafa am lu manqué te daan am wala mu war a am mooy la coopération des population mais foofu policier bi foofu ak police Ouest Foire. waaw foofu ak police Foire gendarmerie Foire. non xam nga. ta dox seen diggante. mais Bijou non non non Bijou sore nañu. orienté wuñu. lokat lokat seen bi ngay. taal rek Bijou. ci rond-point bi population Touba Xaadimu Rasuul bu ñu lancé taal kenn dootu sax. non xam nga boucher am réew sax du yegg foofu. non war na faa yegg. parce que lii kii nii nii ñu ko def nii pour la xam nga waa ji nee na numéro yu mu am dans dix te numéro yi ñoom lay liggéeyal ñàkk na ko. ah bu amee moom tamit bu amee compte Google. Mm-hmm. wala mu compte iCloud day ñëwaat. day jàpp iPhone la yor. non même ak n'importe quel téléphone par Google yow a am foofu. sëñ bi na population di dénoncer. dañuy am courage di dénoncer. est-ce que jotul tey nit ñi nga xamante ne. da ngay dëkk grand nit ñi tamit nit ñi tamit buur. xam nga bisu dama ko wax keroog dama ko wax keroog grand sama wax man du neex mënuñu nekk ñun ay doomu grand juddoo fa yore fa màggee fa. yomb tu vois benn groupe bu jeune ci benn bopp koñ. nga xam liñ fay def. da lay wóor ci ñaam yàmbaa toog ko ak agressé ko ci agressé ci la ñuy xëy ci la ñuy gont. pour que les populations mënuñ jël seen i responsabilités. dénoncer genre groupe groupaan yooyu. mais koo ci bëgg a dénoncé ne doomu diw la te li garaaw Bijou Kër Massar gis naa fa loo xam ne gox bu mu am du bëri dina réglé wu mm. muy section de recherche bi ñu fa posé fan yii ca Kër Massar ca côté toolu Ablaye Wade bi mm. mais lu bëri da ko raxas waaw parce que bul fàtte ne Kër Massar dañ doon wax pain chocolat sax dañ koy këf déggoo li ma la wax léegi nag xoolal section de section de <laughs> xoolal fa def mm-hmm. maa ngi nuyu kànji <laughs> waaye ah. xoolal kilifa ga nekk section de recherche xoolal billaahi wallaahi kallaahi la dañ koy këf ñotti chocolat bi delloo la mburu bi wala ñu xar ko ci digg bi jox la Kër Massar côté agression lay xoolal gi ñu ko faa dégg ndax bu tax loolu waaw ñañ fa teg dañuy wàcc si le terrain <laughs> sur le terrain gendarmerie Kër Massar dañuy wàcc sur le terrain police jaxaay bi nga xam ne nii jaxaay moo gën a populaire mooy waa déglu ma rek ma ñëw buur buur xoolal commissaire Thioub commissaire Thioub wuy ma commissaire Thioub bu jaxaay day wàcc sur le terrain il faut tamit gars yi ñemewuñu homme de tenue yi. te kaay ñaar ba tamit nga police Sénégal bi ak gendarmerie. dañ leen jox ay moyens ñu wàcc sur le terrain. waaw may leen war a jox ay moyens ñu wàcc sur le terrain. sàcc bi du ci garaawul tudde dama lay wax Fadam damaa bëgg nga déglu ma ci benn affaire bu naw nga déglu ma xel bañ maa dégloo xol. jamono ji mais bu ki lay expliqué rek waxtaan du confrontation. jamono ji <laughs> teel bi teel ah, bi <laughs> Bijou Tija libre nga. ñaari wax laa lay wax. Tija sama bi. sàcc bi garaawul de. Mhm. mais waa ji ngay xool bu bañoon. Mhm. ñu jam ko yaa ngi may dégg Bijou. mais da ngay xool kii boote waa ji bu bañoon. bougé ñu jam ko wala ñu gaañ ko foofu ngay xool benn. ñaar dama lay wax benn affaire léegi kasu Sénégal. gaa ragalatuñ ko. faaleetuñ ko xaw ma lan la. Hmm. léegi nii barke Sëriñ defatuñ ko loolu mukk. non defatuñ ko dara. metti na de. gaa yi léegi dañu dañoo ñeme léegi dañoo ñeme. homme de tenue waaye di woo ñëpp ci luy euh, problème euh, don yi nga xamante ne tàmm nañ di ko def. chaque man bu njëkk bu ma gisee homme de tenue damay daw. Euh, wala wax léegi ci kaso yi sama xel dem ci. maa ngi ciy woo ñëpp xam naa ne mosuma cee woote sax ay at yi ngi nii mosuma cee woote. li ci caa dugg si léegi moo tax sama xel dem ci. waaw non non peut-être dafa toll foofu. ah dafa toll ci ñëpp bëgg cee jàpp parce que daaw ku ne danga ma doon wax ne ma Bijou bëgg nañ ci jàpp bëgg nañ ci nangam parce que ñun tamit dañuy dox ci woman power day dox ci li nga xamante xam naa ci mois de mars bi dinañ leen dinañ invité seen euh, euh, seen présidente ah euh, muy Cica Ndeye faatu mbay mu ñëw toog. ñu expliquer ci femmes yi dimbali nga xam ne ñu ngi leen di dimbali aussi. pour seen réinsertion ak ñi nga xam ne ñu ngi nekk camp ñi ñii 100 mètres euh, ñii nekk euh, euh, Sébikotane ak ñi nga xamante ne ñi ngi nekk Rufisque ak fépp rek kaso boo xamante ne wax dëgg yàlla mi ngi ci biir Sénégal Women Power ñu ngi ñu ngi ñu ngi woo ñëpp ci li nga xamante ne moom mooy aide yi ñu leen di defal ah ñu fas yéene ko joxe le 8 mars incha allah ah war a dëgmal fi nga xamante ne moom mooy. camp pénal euh, di leen jaajëfal bu baax a baax baax équipe bi yëpp yëpp yëpp yëpp ay ci Mouhamadou alors ñu dem ci bi nga xam ne mooy beneen euh, rubrique Karajo kooku nag suñu xarit la parce que la fois passée ci émission bi nga xam ne moo di confrontation bi su dalaloon nañ fi ku fi mel ni Cheikh Abdou Bara Dolly ak nga xam ne moo di Mara Niass waaye juste après émission bi bëri woon na ay polémique mais ku nekk ngi nag dem ñii ñi ngi dem ci di ko interviewé ñii ngi dem ci Cheikh Abdou Bara Dolly mais gis nañ ci benn vidéo Cheikh Abdou Bara ñu koy laaj mu war nañu wan nag ay ay ay otom wan ay këram ne moom nag tooñkat nag non suñu waaw bi mooy James yi ci Passy la bokk Passy. waaw tey tey yi nga doxantoo jëlee ko fi mu ne nii. mais biir ci la bokk mooy it. waaw waaw waaw bii tamit ci la bokk bii mooy euh, squelette. squelette nouveau modèle bi. squelette nouveau modèle. waaw bii tamit ci la bokk waaw bii tamit. squelette. ki maanaam moom moo dee génn. waaw ah. mais mbake fii mooy dëkkuwaay bi étage bi. waaw ñaari étage xoolal gis nga étage bi yëpp Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly mooy borom ñaari étage yii nii waa kii ngeen foog ne am na jot nekk fi tontu nekk xuloo ah ah, ah bii xale yi di jàng jee ah moom la ñuy doxantoo bii nii. waaw waaw waaw oh. moo campagne lépp. ci bii nii. waaw ginnaaw naa mooy campagne ci hmm? na ko yàlla defal jàmm. yokk xewal bi yokkal ay oto ay kër. yàlla na ko yàlla na ràpp jàmm daal. waaw mu am benn leeral bi ma bëgg def rek parce que gis naa ko mu def benn sortie wax na dañ koo complot pour euh, yàlla xam na ko man émission yi man kaleetuma balaa nit di gëm ne kaleetuma émission nga ñëw toog fii si plateau bi ah, mën ngaa waat ni man ak moom ba tey jokkalante wuñu téléphone ba ba muy toog fii donc man aw ma aw ma émission bi dafa am dafa am équipe de production équipe bi ci boppam ñooy seet li yàlla xam ne bu dee xam naa man ci vingt heures ñii laa am émission yàlla la bu ma egg sama kër xamuma ko encore une fois de plus nee na dañ koo complot pour toog ko fii pour toroxal ko amaat confrontation li ci am duñ ko sóoraale sóoraale wuñu ko pour kii toog ak keneen li ci am c'est les aléas du direct nit day toog këram sentir ne kii mi ngi koy wax nangam mu tax émission directe la émission direct la buy durer quatre heures de temps donc ñun mënuñoo xam exa diggante fii Ndakaaru fu gax fu xat fii nga xam ne fépp foo taal oto ñëw fekk si nit ki lim lay waxal bu la leerul ñëpp lay woo surtout ci émission bi mel ni confrontation nit ki bu ko neexee dugg répliquer mais juguñu pour di woo kenn ak kenn ba émission bi commencé ak ni mu ak ni ko kenn ku ci nekk nuyoo sa morom nga xam ne kenn prévoirul leen mais nit ki di nga ko wax lu la naqari. mais bu tontoo lu la naqari émission bi en direct la. bijou fii ku fi toog ko bëgg faral dañ ko envoyé ay message ne waxal lii faram wala waxal lii bijou. Hmm? émission bi doo xam direct la. man lu ne laay dégg man mii lu ne laay. laay bijou ñoom ñaar ñëpp ku nekk nekk nga courant que sa morom moom la ñuy invité yéen ñaar. daw. préparation amu fi émission bi bu melee ni mu mel nit ki di wootee am droit réponse dañ koy tibbi ligne bi mu dugg noonu la demee na génn ci lim nekk nii sëñ bi bugguma tontu ci. ñu dem ci beneen beneen rajo bi je pense beneen bi nag c'est son excellence monsieur Macky Sall gannaaw jàkkaarloo bi mu defoon nag euh, quelques journalistes lu ci mel ni Soleil lu ci mel ni RTS euh, Seneweb ak ITV ñoom itam mu jàkkaarloo moom mu yëkkati na ay kaddu lu jëm gars yi posé ko question lu jëm ci wàllu élection yi moom daal dialogue la gis balaa ñuy jàppagum benn date. dialogue dialogue. laajal keneen. léegi man su fekkee yow laa bëgg a laaj nag. def émission pour ñu ñëpp laajal keneen. non mais yow yaa koy débuté dialogue bi. yow kii dialogue bi loo ci xalaat. dialogue bi lundi la loo ci xalaat. nañ juboo rek nañ juboo rek. nañ juboo rek. loo xalaat ci dialogue bi. jox naa ko buur. Ah, bi ngeen di paasante pour la. Ah. kat daa neexut a waxee. dialogue léegi yéen kenn du ko ci dialogue. dialogue bu keeg mbaam est que dana ñun xam nga li ñu fekk ci ay dialogue tamit dafa bëri. li fekk ci ay dialogue. dafa bëri te toujours la montagne accouche d'un petit souris. rafet ni man fekk ci ay dialogue. waaw toujours la grande montagne. Ah. accouche un petit souris. un petit souris. mooy bu fekkee dañuy dañuy waxtaan. dañuy nawlante d'abord. mën a xoolante ci ay bët c'est dire la vérité en face mais <laughs> yi fi jot a xew man je si nii ni partisan nii contre dama sàmm wala dama ba mais dialogue bu ñëwee sur les dix huit xaw ma dix neuf partis yi war a bokk ci élection yi sièges yi nee nañ demuñu boobu ban genre dialogue la war a doon vraiment. Hmm. ah ndax yàlla sièges partis yi nee nañ man moom personnel dew ma suñ xaadim moom Mbàkke moom suñu moom maa ngi gis benn information comme quoi que son excellence dina recevoir ñi nga xam ne mooy dix-neuf candidats yi mhm. foofu ci kii bi de euh, parce que avant dialogue bi day recevoir ñi suba recevoir ñi ci ngoon ñu doog a dem ci dialogue bi ñi nga xam ne ñi ñu rakale la ak ñi nga xam ne ay candidats lañ en tout cas euh, li ma ci mën a tënk rek mooy un oui n'a de sens que euh, quand celui euh, qui le dit a la possibilité de dire non dialogue bi daal li ci gënoon gaaw xam mooy lan. xam nga moom génn Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ci kaso bi rek dialogue a yomb. waaw xaaral ma expliqué bëggul dem ñiy dem ak lu mu munti demee rek nañu jiital li nga xamante ne moom mooy intérêt sénégalais. loolu moo am importance. mais bi un dialogue avec Ousmane Sonko dans la prison ak Bassirou Diomaye penses-tu que ça euh, que tamit euh, euh, kaay ma wax la quoi qu'on puisse dire ci li nga xamante ne moom mooy élément bi Karajo di ñu wax mi ngi préciser ba tey que ni. te deux il n'est plus président donc bu ñu defati focus ci loolu. Mhm. man defe naa xalaat war nañ xalaatee foofu waaye tiim ay euh, euh, euh, wax dëgg yàlla nekk ci position boo xamante ne ñu ngi wax à chaque fois ba tey defe naa étape boobu war nañ koo puus nag moom nee na le deux nekkatul président nañ jàpp ne le deux nekkatul président ñu xool nag li suñu soor nag. mais d'accord Bijou bañ a defati ci loolu Bijou su bëggoon li gën a yomb tey woo jàmm. Mm. li mu wax le président de la république. man j'ai pendant des années et des années moom rek laa gëm. Ah. moom rek laa bëgg moom la président Macky Sall mais tey ni mu ko waxee moom am na possibilité jéggale wala mu baale wala mu bàyyi pour l'intérêt supérieur de la nation. mënula woote un dialogue ne da ngeen bëgg jàmm ci dëkk bi en laissant Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye chaque s'accroupir dans les prisons. mais qui t'a dit que peut-être mën nañ. non dama ni la moom li mu wax laay wax ay wolof laa wax de. Mhm. dafa ni man président de la république. am naa possibilité. gracier oh, oh. wala amnistier ay nit yoo xamante ne que nangam ak nangam pour l'intérêt supérieur de la nation. l'intérêt supérieur de la nation big taf wa ma shahidna illa bi ma alim na ñun nous ne sommes pas avec Ousmane Sonko mais mënuloo woote jàmm ci réew mi en laissant Ousmane Sonko et Bassirou Faye dans les prisons ça serait impossible. te bisu lépp lu ciy mënti am ñun baadoolo yi rek ñoo ciy deewaat lépp lu ciy mënti am rek baadoolo yi rek ñoo ciy deewaat kon jii ñoom lépp luñ ciy mënti def nañu xool lan mooy intérêt réew mi intérêt réew mi mooy ñu xool lan mooy jàmmi réew mi te li jàmmi réew mi mooy nañu xam ne tey jii lu mënti am ñun banlieusards yi ñun ñi nga xam ne ñu am na ñoo xam ne tey jii bu ñu xëyut benn fan du ñu am dépasse suba ñooñu nañ leen bàyyi xel am na ñoo xam ne bu ñu xëyut benn fan duñu dund te ñooñu ci banlieue bi la ñu dëkk te dañuy xëy mën a dugg ndakaaru pour mën a am lu ñu mën a lekk suba te boobaa ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci bi yëpp ak ñi nga xam ne ñoo koy xëccoo ñëpp nañu sóoraale banlieue bi te tey ji tey ñi nga xam ne tey ñoo fii kilifa tamit nañu xool ni ñuy waxee am na ñoo xam ne nit yi sóoraale tuñ benn ndaw ci réew mi ci ni ñuy waxee dañuy dem ba sax léegi ndaw ñëpp tiit amatul benn ndaw bu am confiance ci àddunaam nañu gën a sóoraale ndaw ñi te xam ne jàmmi réew mi yàlla daf ko jël teg ko seen loxo te bu ñu amee jàmm yàlla ak ñoom la ak képp ku mu mënti doon nag. Euh, ba euh, li nga wax li nga wax li nga wax li nga wax nga wax dëgg la mais damay ñëw ci li buur doon wax léegi rek yow Ketchup da nga ci maandu. ci li ñuy wax ni non du moom xam nga lan mooy sama problème man. Hmm. man ma dugguma ci politique man damaa am. sérieux man xarit laa am ci politique xarit moo tax bugguma ku ma ciy wax yenn yi may kii man dama am xarit ci politique muy Lat Diop xarit muy sama lépp man kooku lay waaye dimbali ñu wañ jàmm dégg nga mais man ay affaire yi <laughs> bëgguma ku ma wax lu yow dimbali ñu waay nga naan ay dañoo am ay affaire non dialogue bi président moo woote dialogue président la moom mooy président Macky Sall mooy président. Euh, kii li muy wax amul benn njariñ mais damay wax booloo nekk benn. damay wax rek buur euh, ci maa ngi répété la ko sànq. Oh, oh. Euh, ci li nga wax tënk ko xam nga proverbe bi nga xamante ne dañ naan un oui n'a n'a de sens que quand celui qui a la possibilité de dire oui euh, euh, la possibilité de dire non oui bi foofu lay amee sens te moom président Macky Sall wàcc na ba nangu li nga xamante ne moom certes mi ngi dem. ñii ñi oh. ngi naan dialogue bi am na sens wala amul sens. Euh, tey defe nañ ni koo xamante ne mi ngi fi dese juste ay nombre de jours wala ay weer ndax dialogue bi am na sens si dialogue am na sens ba bis bi muy dem. Oh. am na sens ba bis bi muy dem euh, euh, yéen ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla yéen la ñu wóolu nekk ci seen ginnaaw ngallaawaay toog leen waxtaan ci seen biir ba xool ni ngeen ñu mën a yore waaw loolu moom c'est très important. Euh, seetaan nañ li nga xamante ne moom mooy interview sortie bi mu def euh, wax dëgg yàlla il l'a fait avec élégance euh, defe naa ni sortie bi mënoon na gën a relax sax mënoon na ëpp impact sax ci façon bu ne waaw mënoon na ëpp impact ci façon bu ne man mu ko laajoon